d'amnistie bi le chef de l'État Macky Sall daal di ne rek euh, passer à l'acte di woy rek di wax kan dafa bëgg apaiser euh, en tout cas l'espace public sénégalais euh, daal di jël ay décisions yu mel ni ab décret du moins ni ki le première mars bi ñu génn li nga xam te nag moom mooy motivé bokk na ci lu soxol amnistie les infractions yi nga xamante ni amoon na ci Sénégal ak li ko wër muy bitim réew loolu nag nekk mbir boo xamante il semblait ni askan bi Euh, ñu ëpp ci ñoom taxul ñu rek daal di bëgg loi boobale ba tax na ñenn ñi jàpp ne même buñ ko forte def ko aussi tamit beneen régime bu ñëwee mën na rek daal di révoquer lu nu mel ba tax ñu indiwaat ay leeral euh, par rapport ak li nga xamante ni amoon na fi Bamba sa jàngat ak loi si bi nga xamante ni euh, de temps en temps mu ngi woy di avancer et d'ailleurs sax tey nekk jour bi nga xamante ni ci la rek président conférence des président war a rek daal di réunir waaw en tout cas je pense que maa ngi nii ak composition bi du du dossier parce que mm. daf ne un décret de présentation mm. euh, numéro 2024 683 du 1er mars 2024 de monsieur le président de la république de exposé des motifs trois projets de loi euh, boo ñëwee ci li nga xam ne moo di ci ci un bi déjà moom président ki Sall euh, mu ngi ñëwaat le président de la république via la constitution le décret numéro 2022 1774 du 17 septembre 2022 euh, portant nomination du Premier ministre. Décret article 1er, le projet de loi dont le texte est annexé eh, au président au présent décret euh, sera présenté à l'Assemblée nationale par le garde des Sceaux, euh, ministre de la Justice, qui sera également chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion. Article 2. Le garde des so ministre de la Justice et le ministre du euh, Travail, euh, du Dialogue social et des relations avec les institutions sont chargés chacun en ce qui le euh, concerne de l'exécution du président décret qui sera euh, publié au journal officiel euh, justement pour respecter pour pour ci article 2 boobu parce que keroog ci dialogue national bi dégg nga le ministre euh, ki nga xam ne euh, moo di Samba Sy moom dafa taxawoon conformément wax ne àndul benn yoon ci loi li nga xam ne moo di amnistie te pourtant war na ci bokk ci jëwriñ yi nga xam ne war nañu dem à l'Assemblée nationale pour daal di défendre ko nationale moom wax na ne euh, d'accordul benn yoon euh, ci par rapport ak li nga xam ne moo di loi euh, d'amnistie boobee jàppal na it ki nga xam ne moo di ministre garde des Sceaux di Aïssata Tall Sall moom it moo ko fas yéene daal di défendre au niveau de l'Assemblée fi nga xam ne moo di national certainement on verra bien moom it lan mooy doon taxawaayam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

reconnaît la constitution maanaam ci dox jàmm gogee ak dox jàmm sa ak euh, salaam gi waaye pour indiwaat li nga xam ne moo di apaisement lu jëm ci wàllum climat politique bi ak climat social bi moom président de la République am na li nga xam ne moo di comme ni ko article 47 bu constitution permettrait mu may li nga xam ne moo di grâce loi bi may na ko à ce tey mu daal di jël ab bataaxal yóbbu ko ab euh, loi <coughs> proposé loi au niveau de l' assemblée nationale euh, ñu mu daal di continuer ci exposé de motifs yi toujours mu ne De quoi la volonté du législateur a toujours été euh, de favoriser l'exercice démocratique face un euh, démocratique dans un contexte de dialogue et d'ouverture politique. Cela s'est traduit à chaque fois par l'adoption de loi portant amnistie des infractions criminelles. maanaam mën nañu jàpp ne képp koo xam ne euh, ci mbirum faat bakkan ak ni mel donc projet de loi bi jot na loolu daal di soxal et corruptionnel ayant un lien avec des événements politiques conflictuels. maanaam lépp loo xam ne ay bakkan rot na ceeg wàllum jàppante te li ko waral bokk na ci ay euh, li nga xam ne moo di événement politique conflictuel mu ne certaines poursuites engagées devant les juridictions ont abouti à des condamnations ayant entraîné des incapacités et des déchéances liées au droit de vote de l'électeur dafa mel nag fii nii ci Mor ba matul mbirum Ousmane Sonko moomee parce que rappelez-vous ko ci mbirum moom ak diggante Mame Mbaye Niang si la ko aje woon lu toll ci li nga xam ne moo di juróomi at yoo xam ne du mën a doon électeur mais booy xool fii dafa mel ni que euh, loi d'amnistie bi bu ñu ko dugalee dina mën a tax Ousmane a xam ne rek moo di ay droit euh, civique am pour mën a doon euh, li nga xam ne moo di ab électeur mu continuer toujours mu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 effaçant euh, sans aucune distinction les infractions visées le président le président loi le, pré le président le présent projet de loi permettant à des euh, personnes privées de leurs droits civiques et politiques euh, d'être euh, rétablies dans leurs droits telle est l'économie du présent projet de loi donc ci gàttal loolu euh, moom la président tënk li nga xam ne rek moo di ci mbir mi boo demee également ci article 3 euh, foofu la ko jeexalee sax euh, nee ci article soo son amnistie est plein droit tous les faits susceptibles de révertir la qualification d'infraction criminelle ou corruptionnelle euh, commise entre le 1er février 2021 et le 25 février 2024, tant au Sénégal qu'à l'étranger, se rapportant à des des motivations politiques, y compris celles faites, euh, celles euh, faites les supports de communication euh, que leur auteur ait été jugé ou non. fii nag dafa ñëw leeral parce que ñu bëri ñu doon wax que ne loi d'amnistie nañu ko def ci koo xam ne atteeguñu la mais ci article euh, deux euh, euh, premier bi moom président mu ngi koy leeral que ne amnistie boobee nañu ko def ku ñu atteeg ak ku ñu atteegul ci article deux boobee moom président mi ngi wéyal toujours l'amnistie entraîne sans qu'elle ne puisse jamais donner lieu à à à reconstituer la remise totale de toutes les peines principales accessoires et complémentaires ainsi que la disparition de toutes les déséances exclusives, incapacité et, privas et, priv et privation euh, de droits attachés à la peine. Euh, boo ñëwee ci article 3 mu ne l'amnistie ne préjuge pas au droit de des tiers. La contrainte par corps ne peut être exercée contre les condamnés ayant bénéficié de l'amnistie. Ceci n'est qu'à la requête des victimes de l'infraction ou de ayant droit. Article 4, les contestations relatives à l'application Euh, de la présente loi d'amnistie sont jugés par la chambre d'accusation de la cour d'appel Dakar dans les conditions prévues par l'article 300 euh, 735 du code de euh, procédure euh, pénale article 5 il est interdit à tout magistrat ou fonctionnaire de rappeler ou de laisser substituer Euh, de substituer euh, sous quelques forme que ce soit euh, dans un dossier judiciaire ou de police ou sans dans tout document officiel les condamnations déséance exclusion incapacité privation de droit attachée à la peine effacée par l'amnistie sauf disposition prévue à l'article 3 de la présente loi toutefois les minutes du jugement des jugements ou arrêts ainsi que tous les décrets arrêtés des Euh, décisions euh, prises euh, dans le cadre de la fonction publique ou des ordres nationaux échappent à cette interdiction lorsqu'ils on été déposés dans des dans les greffes ou les archives nationales la présente loi sera examinée sera exécutée comme loi de l'État mu doon yenn ci ay motifs yoo xam ne rek tënk naa ko mu ngi noonu ki nga xam ne moo di moor mais daal li ñu ci mën a jàpp ci li nga xam ne rek moo di moo di gàttal jàppal ne képp koo xam ne tegoon nañ loxo ci wàllum faat ak yi ni mel donc jàppal ne dañ ci bokk mais leneen lit mooy képp koo xam ne loi bi jot nga ci bénéficier jàppal ne loolu dina mën a tax nga mën a doonaat li nga xam ne rek moo di électeur certainement sax on juste de recevoir que ne euh, bureau assemblée nationale jot nañ leen convoqué tey bu 16 jotee certainement du ñàkkit ne tey euh, li nga xam ne moo di balaa bi di jeex euh, la tegoon leen loxo y compris les forces occultes ay rebelles ak ak ñi nga xam ne dañ leen tegoon loxo euh, ci par rapport dans ce contexte li ñu war a surveiller également c'est par rapport ak li nga xam ne moo di posture Samba Sy parce que maa la koy wax tout ci dialogue national bi gisoon nañ ko mu taxawaay boo xam ne kat moom dafa xamle woon que àndul benn yoon ci loi d'amnistie te pourtant war na bokk ci jëwriñ yi nga xam ne dina ànd ak ñu bëri jàpp nañ ne euh, président deful ko pour ñi nga xam ne moom lañ tegoon loxo mais daf ko def pour ay ñoñam pourquoi kat parce que am na ñenn ci ñoom ñoo xam ne tey ñu leen di tuubaal wàllu surtout fond force covid 19 ak yeneen i ay mbir yoo xam ne war nañ ko leeral leneen lit mooy ci événement yi fi xewoon gis nañ fi ay nit ñu tuumaal ne ay nervi lañu et boo xoolee un peu bi nga xam ne moo di Pape Abdoulaye Touré euh, jot na ko amal quand même ko mën a leeral dafay naax saay képp koo xam ne sa bët yàqu na si sa tànk yàqu na si wala yàqoo ci nangam donc tu perdant parce que du am lenn loo xam ne justice dina ko mën a amal ci mbir mi pour man jàpp naa ne on va tout droit vers li nga xam ne rek moo di peut la libération li fi amoon yëpp dañu koy suul denc ko après on passe à autre chose nag quelle sera l'attitude peut-être des députés parce que ce ce matin am ne dafa taxaw teemu ñoom ñi nga xam ne nañ ànduñu benn loi d'amnistie bi maintenant nag déggoon ci fan yi ñu génn ñu ne président yokk na ci pour la révision du projet de ki nga xam ne moo di Karim Meïssa Wade maintenant ci exposé des motifs yi on n'a pas vu <coughs> on n'a pas vu l'affaire concernant <coughs> ki nga xam ne moo di euh, Karim Meïssa Wade mais en tout cas ci entre temps wala fekkee fan donc on surveillera très près est-ce loolu dina bokk ci li nga xam ne dinañ ko def des amendements par rapport à l'Assemblée nationale. <coughs> mais euh, Bamba question bi euh, Sénégalais di laaj demain ki nga ñëwaat 77 842. dix 19 19 ñu wéy rek euh, di ànd ak yéen 77 842 19 19 bu ko defee rek